journaliste la taxal ma laaj la na nga def. te nga maa poobar moo gën a saf nga may laaj. ma lay poobar jimbo la ak safur la jimbo sax publicité la dama lay poobar kaani la paccal la paccal li moo. waaw ah, yooyu yooyu ma gënal. yow man looloo jaaxal sax euh, Pa Maguette. temps yi da nga bàyyi kaf gi nekk mbër moo tax gars yi xaw a rasu tuuti. ah non tamit man wax dëgg yàlla Pa Maguette bu ñu waxtaanee wax dëgg rek neex yàlla Alboury doxul ci yooyu. man mbër laa du dëgg. wala man da nga bàyyi foo bi xam nga gars yi dañ naan comédien mais man foo laay wax yow da doon foo di neexal mais mbër nga mbër pire. waa mais tamit euh, dama bëgg nga xam leen Alboury mbër la bu ma leeroon ne man mii munu ma nekk roi des arènes suba su ma xëyee tekki sama ngemb sànni. yow yow nii nii nii dala leer da ngay nekk roi des arènes. par man moo la ko ma daaro daaw ngooñ maa samba dembaleen ngooñ takkul téere laalatul ndomba kollu gaad di njer dem ngooñ du woy du woyaan te ku mu dab la man <laughs> la doxo eh, eh, faale ma wajoon fu ma sàmm yaay joloon ngooñ du woy du woyaat da ku mu dab la nagu yow sa moom bul wax awra bàyyil awra yi. lépp ci génn ah. nank rek. non dafa nank na génn si doxo Fallek Maama Diop. non na génn si doxo Fallek Maama Diop bokkul foofu. bàyyi naa ko Albouri garaawul. coow nga bëgg ma ne coow la. yow kii dafa ëpp wa waaw kii dafa ëpp coow yi lan yow. yow coow yi lan kii dafa ëpp victoire. kii dafa ëpp victoire laa lay laaj. barke Cheikh Modou yow yow yow comédien waxuma yow dama ni. dama ni ma ni xaaral ma ñëw xamal ma koy toppee dafa jël Alboury sama maam muppoo ko moom Alboury Sarr mooy maamam man dama koo topp ba xam ko. biram biram benn jéem a déglu ma li ma gën a metti mu ne dafa bokk ci Dogo Fall ak Mawa Dior Kumba Samba yaay Jolor bokkul foofu Dogo Fall ak sa Dogo Fall ak Mawa Dior Kumba Samba yaay Jolor. Maguette Ndiaye Maguette Gueye xaale Ali Maguette Gueye xaale Càkk Ma Samba yaa ngi dégg surtout ngoñ baa ñii de moom nee na maamam ku ko mas a tooñ day bàyyi ba mat fukk man sama maam da koy tooñ léegi mu la léegi man la dem ba Daaro ma ni moo dama ni moom sama maam ngooñ seen maam da daan tere wayaan seen maam bu sen maam mësaan a wayaan ba ñëw sama maam ngooñ da leen koj na lan wayaan biir na Serigne Touba ñi may wax xam nañ boobu ba pare ma ni ma ni Demba Daaro daaw ngooñ ma Samba Demba leen ngooñ taxul téere laalu nooba te kollegaa di ndar jéem ma ni ko ko sot baa ngi nii dama ni loolu lépp waxuma ko Alboury bu jëlee avance bi dinaa tàppalaa pipi mala wax mbiw léegi kaf gi kaf gi da ko bàyyi ah bàyyi moo de da nga ne da ne dana leer ne da ngay nekk roi des arènes nga ko teg sëriñ na ko la ko wax wala da nga ko gént wala lan non dama ne la man bu ma leeroon na man damay bëre ba bàyyi bëre du ma nekk roi des arènes suba ma tekki sama ngem. yow dalal na da ngay loolu far force la. bu ñu fi yàlla ji bàyyi. bu ñu fi yàlla ji bàyyi du. question maam wala sëriñ. du question rek. Euh, wala jinne wala rab maam wala jinne mais na ko teg ci logique sportif. ak ngëm-ngëm. man làmb ji benn mbër amul. Eh. ña ngay xeex.